assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki internet yi suivre seen plateforme bii di muslim sénégal production di mms pro 221 mms pro 221 mu ngi leen di jaajëfal te di leen ndokkeel ci seen taxawaay bu rafet ak seen jàppale bu am solo depuis bu mu lancé plateforme bi ab chaîne la boo xamante ne nii lu ko tax a jóg mooy sensibilisation mooy leeralal julit ñi seeni mbiri diine waaye aussi tamit baaxe doomi aadama yi ay mbir yu leen mën a yokk yu leen mën a jëriñ ci seen ay mbirum adduna seen mbirum alaxira ak seen mbiru diine waane mbokk jullit nii ku seetaan vidéo yi ñuy def da ngay yëg ne ay effort yu jéggi dayo moom la ñuy déployer pour mën leen a jox vidéo yi nga xamante ne ni yéen koy am saa su nekk seeni téléphone bi ko seetaan. ci lu tolloog fukki weer ak juróom ñu am yéene gën a dëgëral taxawaay bi ak gën koo yaatal ci jënduk ay matériel ak i équipement objectif bi toll ci deux millions francs CFA maanaam ñaari millions. actuellement danoo nekk ci beneen dimension danoo bëgg a yéeg dimension bu ñu nekk dañ ko bëgg a dem ci beneen bu gën a kawee mooy que ne dañoo aajowoo ay matériel MMS TV dafa aajowoo ay matériel pour liggéey bi gën a ñoŋ pour qualité de vidéo bi qualité de son bi gën a mën a jàll njëriñ yi gën a mën a yaatu bi ñu xaymawee nag matériel yi nga xam ne aajo woon nañ ko pour mën a gën a mën a soqali liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy def ci chaîne bi loole toll na ci budget wu 2 millions. ci loolu MMS Pro 221 ak oustaz Ibrahim Gueye di lancer campagne levée de fonds opération dooleel mbaax ci MMS Pro 221. ñoo ngi lay ñaan nga participer. te nga mu participer. ngir participation man ngeen ko jaarale ci Orange Money Free Money wala Kpay ci numéro bi di 76 661 83 23. MMS Pro 221 juste l'essentiel pour la sérénité l'opportunité et la priorité.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 dee suñu jaamu kenn jaamu ga di tegu ci dëgg te ànd ak njëriñ ku dul moom di seede it ne muhammad ibn abdillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ndawal yàlla doo nit jaamub sunu borom tabaraka wa taala bokk julit ñi njubug yonent bi alayhi salaatu moo gën a dëggu ci lu ñuy roy lepp lu nek ci alquran deug la lu ak mom ay nen la ki caaxaan ma ngi denk sama bop mbokk yi di len denk ragal sunu borom tabaarak wa taala ci def ay ndigalam te bayyi mboole mi terem borom bi soññ na ci lolu ci alquran lu bare bare ci ay laaya bokku na ci sunu borom neena yeen ñi gëm yalla na ngeen ragal yalla deug deug ragal waaye bu len faatu mukk lu dul da ngeena seen borom bi tabaraka wa taala yalla nu yalla wërsegal lolu mbokk yi kon mangi ngi sang sama bopp di len denk and jëfe ndigalu yàlla yi te bayyi mboole mi suñu tay allah fay tengkuci ci ñu yëk li nga xamne moy magga yu suñu borom tabaraka wa taala réew mi jamono ji ñu toll am taxaw seetlu da ngay ne am na ay nit ñoo xam ne xawma lan lañ ci jublu nag waaye dangay ngay yëg ne dañoo nekk ci di woyafal sunu boroom ci xolu jaam yi loolu ko am seetlu di nga ko yëg jamono ji ci réew mi na ci xew xew diine yi wala ay xew-xew yu ñu askanale diine ay nit ñoo xam ne léeg-léeg sax mu doon ay nit ñoo xam ne xëy na ay kilifa la ñuy doon ci wàll wiñ ne léeg-léeg da ngay déglu ci seeni kaddu loo xam ne man li ma ko jàppee mooy dañoo nekk di woyafal màggaayu yàlla subhaanahu wa ci xolu nit ñi ngir xëy na ñoom am nañu keneen ku ñu bëgg a màggal ci xolu jaam ñi ba tax na loolu yóbbe leen ñuy wax ay kàddu yoo xam ne li muy jublu mooy day dem ba nit ki day ñemee wax yàlla lu ne day ñemee wax ci lislaam lu ne ngir ne déggee na ko ci koo xam ne jàpp na ne kilifaam la wala jàpp na ne bu ko waxee dara du ko ci fekk kàddu yooyu nag jaruñu ci jaar di joxe ay misaal waaye ñun ñoo bokk réew mi ku nekk da koy dégg ay kàddu yoo xam ne buñ ko waxoon ci yeneen réew yu organisé wu kon ñu ko wax li gën a néew ci ñu def leen ko mooy caabi féete leen ginnaaw waaye mën nañ leen ci sax faat ndax ay kàddu la yoo xam ne nit ki mënu ko wax ba noppi continuer di nekk julit di ko wax ci xàq borom bi tabaraka wa taala di ko wax ci xàq yonent bi alayhi salaatu wasalaam dem ba ci malaayika yi dem ba ci malaayika yi dégg naa kenn ci ñoom mu ne jibril moom rek la bañ mu ne moom jibril bëggu ko jibril bëggul sax koy wax aw turam bu nu waxee aw turam jibril lay mer ak yeneen ak yeneen yeneen ci ay kàddu ñenn ñi dem ba du ko jëmale ci alquran di wax ay kàddu yu doyadi ci jëmale ko ci alquranul karim ñenn ñi dem ba ci diina lislaam di wax yooyu nga xam ne ay mbir la yoo xam ne ñun dañ koo gëm di ko màggal mu am cër ci suñuy xol doomi aadama yi di ko laal muy mett ci sa xol yooyu day dem ba lam mën a jur bu ñu deful attention mooy dañuy dem ba mbir yooyu ñu doon màggal ak yëkkatee ko rëyal day woyof ci suñuy xol bu ko defee ay doomi aadama lañ lay présenté rëyal doomi aadama yooyu nag ak leen ca kaw kenn du leen laal kenn du wax dara jëme ci ñoom aar leen wattu leen sàmm leen di leen waxal ba di leen di waxal loo xam ne ñoom ñi koy wax bu ñu wéetee xam ne lii moom ak ëppale dara du ci dëgg loolu la muy jur mooy réyal ay mbindeefan ci say xol wàcce li nga xam ne mooy borom bi tabaaraka wa taala ci sa xol te loolu bu ci jullit ñi nekkee alkane mën naa wàcc suñ kaw moo tax alquranul karim dafa jàjji jëmee ci ki nga xam ne dafay woyofal màggaayu yàlla subhanahu wa taala ci xolam suñu borom wax na ci alquran mu ne doomi aadama yi weguñu ko dëgg-dëgg wekk doomi aadama yi dese nañoo teg borom bi tabaraka wa taala dëgg dëgg palaasam jox ko cër bi nga xam ne moom la yegoo moom suñu borom tabaraka wa taala wa maa qadarullah xaqa qadri aaya googee suñu borom bamtu na ko ci alquran ci ñetti bërëb ci biir alquranul karim bi ci jiitu mooy suratul an'am borom bi tabaraka wa taala nee na wa maa qadarullah xaqa qadri id qaalu maa anzala allahu ala basharin min shay suratul an'am borom bi neena nit ñi wegguñu ñuma ni ma wara a ndax dem nañ bay di naan yalla yónniwul ben yonent yalla yónniwul ben yonent xolal ñi mom ñoom dañ na yalla waccewul alquran waccewul dara yónniwul sax yonent yi borom bi tabaaraku taala jappé loolu manke respect ba tuddu ko ci alquranul karim ci benen Cibin ci biir alquran ci suratul hajj sunu borom tabaarak wa taala mun ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lahu إن الذين تدعون من دون الله لا لم يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب وما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز سمبر من يين دومي آدمي jox nañ leen ab misaal moo ngi nii dëkku leen ko mu nga da ngeen leen yaakaar ci àdduna jébbalu ci ñoom jox leen seeni mbiri àdduna ak alaaxira mu ne ñoom day mënuñoo bind sax aw weñ weñ mënuñu koo bind weñ yii dinaaw mënuñoo mënuñu koo defar mu ne ku ci yoroon doomu màngo di xéewlu mbaa kaasub soow di naan ci ñoom ñoo ñooñee nga xam ne nit ñi màggal nañ leen yëkkati leen ba weesul leen dayoog borom bi tabaaraka wa ndax léegi nekkatuñ di wax ne tolloo ak yàlla loolu moom romb nañ ko gars yi tolloo leen ko ak yàlla ay mindaafoon waaye dañ leen di yëkkati rombal leen yàlla mu ne ku ci yoroon doomu màngo di xéewlu mbaa kaasub soow di naan weñ yii di naaw daal di ciy toog am lu mu ci jël dem nee na kooku lott na lott na mën a dàq weñ bi ba jàpp ko fokkati li weñ bi jël ci moom munu ko def te loolu ku xam ne dëgg la weñ yii weñ yii nga xam ne maanaam bu tolee ci yow boko ko ne nii rek mu naaw non seulement mënu mënuñoo bind ay weñ mënuñ ko mënuñ ko ñaaral moy ku ci yoron dara wéñ bi fokkati ko ci yow naw sa tële ak sa ñak mëna sa dara ak dina ci wéñ woowu mëno ko dakk ba jappat ko fokkati li nga xam jël na ko ci yow suñu borom nee ñi ngeen di yëkëté ka maggal ñom ñu neew lan luñu seen dara bay manal yow mi nga xamne yaakar nga len dara lolu nak misal la buy woné né kudul yalla subhanahu wa taala ku new katan nga ku mënut dara nga doomu aadama li limu tëlal boppam moo ëpp li mu mënal boppam masalan doomu adama bala nga yek ne manal bopam dara bëñ bëñam bëñam di metti bëñ bëñ buy metti bëñu sew yi na ci gemmeñ di metti leg leg ba gis nit ko xam liñ koy yaakaaral diko ko waxal diko yekeuti diko di moom mu koy yëg ci bànneex di yëkkatiku ñu koy waxal ci ay wax di ko ko teg ci loo xamante ne nii du àq ci moom ku ci bëñ bëñ buy metti doon daaneel guddi nga tëdd ba guddi rek ba ñu metti attaqué la foofu ngay yëg ne ndeke dëgg dëgg nag yow doo dara ndax lépp ngay fàtte ñëpp ngay fàtte ku la woo téléphone doo ko jël ku la seet ci ñu ne ko daa fiburu daa feebar Loy def da ngay jébbal sa bop ab docteur lum la wax nga def lum la nan lo nga nan lum la la lo nga tëdd nonu lum la ci lo nga diw di yaakaar mu sedd ngay dogo tal lenen motax suñu borom tabaaraka taala mu ne teguñu yalla weguñu yalla deug deug wek te xamuñu ne yalla mom tabaaraka wa taala ku am katan la la qawi mbokk yi suñu borom xejul fenn ci ñun motax mu wax ci alquran wa allahu sun borom neena nee na maa ngi leen di wattandikuloo sama bopp moytu len ma billahi lazi la ilaha illa huwa yàlla xejul fenn ci ñun katana mom sun borom waxuma tax mom way mbindaa fanam yi rek mbindaa fanam yi rek xolal malaika yi ni toll ci niñ ko jàng ci yenn hadith yi xolal géej gi xolal asaman ci xolal suuf ci xolal suñu borom katanam ci doomu adama wa fi anfusikum afala tubsirun xolal yalla bi mu dund nit man nga tambale ci karaw doomu ak karaw gi nga xamne ñaata yoon nga watu bi nga duddo ba tay yow ñaata yoon nga jël lamset wat ko te bes bu nek karaw gi ñewat fan lay joge fan fan la karaw gi di joge di ñew ci yow fan sa deru karaw sa deru bopp bii buñ ko xotti won buñ fa fek ay karaw yu ne ci suuf di sax di ñew fan la karaw gi du joge ndax ci bopp bi lay bayiko fan ñaata yoon nga watu karaw gi di ñewat fan lay bayiko xolal way yi boko dagon yett fan ñaar bu tambale magat. fan lay bayiko fan kuy def loolu xoolal doomu aadama ni ko suñu borom bindee waxuma ay bët waxuma bopp waxuma nopp yi waxuma yooyu yëpp waaye xoolal gémmiñu doomu aadama ni ko suñu borom sàkke nga mën a dégg luy tolloo juróomi làkk te làkk boo ci bëgg wax soxla woo soppi làmmeñ wi maanaam soxla woo bind làmmeñ wi dugal beneen làmmeñ ngir làkk beneen làkk automatique lay ñëw xoolal gémmiñu doomu aadama ni ko suñu borom bindee def ci aw yuut yuut yuut yi nga xam ne man la cee bañ a bàyyi xel te xamoo ne li ngay xéewloo li ngay lekk da ngaa aajowoo yuut wi ngir mën a jàll sa bëli ndax lekk gi bu duggee sa biir gémmiñ yuut yee koy tooyal bëñ yi wal ko mu mën a romb bëli bi fii te doo sentir embouteillage doo ko gunge ak ndox ngir mu jàll doo ci am problème yuut yooyee suñu borom daf ko mu lewet lewet mu lewet ngir cafte gu ñëw mu ànd ak moom xoolal bu ko defoon mu xorome mbaa mu saf kaani mbaa mu wex kat comme limon kon doomu adama man ta xam guu ni mel xoolal làmmiñu doomu adama ni mel xoolal bañ ya xoolal tuñ ya xoolal doomu adama ni ko suñu borom bind xoolal am xel xoolal nelaw nelaw nga xam ne boo ko manqué woon wëri ko boo ko manqué woon wëri ko te xamoo fu mu nekk ci yow te ku nelawut am jafeñ-jafeñ yàlla subhanahu wa taala dina ko tàggatal ci ay waxtu muy ñëw boo nelawee fàtt lépp mbokk julit ñi suñu borom tabaaraka taala méritoowul ci ñun ñu koy bokkaale keneen suñu borom subhanahu wa taala fi mu jaar ñun moo kawe fi mu jaar ak ñun moo rëy te wallahi lu nu yàlla defal kenn mënu nu ko defal nag lu nu yàlla defal amul kenn koo xam ne man na ko mbokk julit nii suñu borom tabaaraka wa taala wax na ci suuratu zumar muy ñetteelu taxawaay bi mu ne wa maa qadarullah xaqa qadri mu ne doomi aadama yi joxuñu ma sama cër man yàlla te ñoom xamuñu ne wal ardu jamian qabdatuhu yowma alqiyaama suuf si ngeen di gis les cinq continents àdduna bi ni mu toll hectares yi hectare suuf sépp ak li néew yeeg ñin fi suul ak man mi wax ak yéen ñiy dégloog kër yeeg bâtiment yeeg géej geeg montagne yeeg lépp yowmal qiyaama borom beneen dama koy ñëpp téye mu koy ñëpp téye mel ni bul yow mi toog imaginer nga ñu ne la ab bul a ngi nii for ko bul xoolal dangay ngay rek ne ko cofit téye bul bul yi xale yi di bulee di foo tegaat yooyu ñu ne la faral bul bi da ngay naan rek for rek téye borom bi nu ko raw lay def suuf si ëllëg yowmal qiyaam mbokku jullit ñi xalaat leen ànd ak man imaginer leen suñu borom tabaaraka wa suuf si nga xam ne yow da war gaal daw ba fu la neex ci biir géej gi ñëwaat. warub oto daw ay téeméeri kilomètre ci biir ci kaw suuf si te doo ko jeexal avion naaw ay junni junni ci ay kilomètre te du jeexal xalaatal àdduna bi yépp les cinq continent ay montagne yu toll ni ay tate yu gudd gudd rëy yowmal qiyaam ànd ak loolee lépp suñu boroom da koy ñëpp ba doo ko gisati mu téeku yowmal qiyaam jamono jooju képp kuñ fi màggal dina sukkalaka raamalaka waat saw tur yaa ngi ci biir suuf su borom bi ñëpp kenn du yëngu kenn du sataat kenn du wax nga ne fa lay yem mu ne was samaawaatu matwiyaatum bi yamini asamaan si moom dama koy lem ni papier téye ne moket yii ci jàkka ji rek buñ ko bëggoon a lem day def biir wi buñ ko bëggoon a lem fi mu ne day def biir wi xoolal asamaani juróom-ñaar asamaani juróom-ñaar borom xam-xam yi nee na nañu autour asamaan. waxuma la diggante asaman ak asaman de déedéet waaye comme mat laa épicerie bi ni 150 cinquante millions kilomètres la 150 cinquante millions kilomètres bu nek mom lay duré mom lay mom lay mesurer ni lolu nga am ko bu muy juroom ñaari asaman mom la borom bi ne dama koy lem lepp yowmal qiyam mbokk yi suñu borom ngand la suñu borom tabaaraka wa taala motax yalla waxna deug bam ne innama allaha min ibadihi al ulama borom bi faw nga réere ko ngir yàpp ko yéen sunu borom faw nga réere ko ngir yàpp ko yàlla na yàlla xamloo boppam moo tax mu ne sell na moom yàlla subhanahu sell na moom yàlla wa taala kawe na lool amma yusrikuuna ñii ngeen koy bokkaaleel doomu aadama su ma nee toog ba waat ci yàlla du ko doy muy jëfandikoo ay doomu aadama di waat ci ñoom la dégg naan moom diw sàngam moom bu la waatalee ci diw sàngam moom xamal ne dëgg la maanaam xeet na waat ci yàlla moom foo mu war diw ndax diw moo rëy ci moom ke sunu borom tabaraka wa taala laa ilaha illa allah muhammadun rasulullah aqulu ma tasmauna wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu wa tubu ilayhi innahu kaana bil rahima MMS Pro 221 الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على المصطفى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى يوم الدين بكي جلتني ينتبه عليه الصلاة والسلام dafa ير صحابي تي مقل يالا تسين خل ريل يالا تسين خل loolu moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam ak kilifteef gi ko yàlla jox yëpp ak cër bi ko yàlla jox yëpp ak teral bi ko yàlla teral yëpp saxaaba yi mësuñoo romb ci di ko xoole ab jaam ñal yàlla ab jaam ñal yàlla yonent bi saxaaba yi dañ koo bëggoon ba àggoon ci bu tuflee ñu for ba àggoon ci buy jàpp ñu bëgg am njàpp mi di ko duwoo di ko sangoo ngir bëgg rasulillahi alayhi salaatu salaam waaye ànd ak loolu dañ ko nan xolé jam jam abduhu wa rasuluhu ab jam la won ñeel yalla di ab yonentam lu waralon lolu moy rasulillahi di lay na tagaton yar len ci magal yalla sen sen xol ba mu reuy te wallahi bu yalla magge ci sa xol doomu adama man reuy ci yow ak kooku mu mënta doon doomu adama bu don xar geej gi di supp jaleñ di yek ci fiil di wàcc di doxlo garab yi bo ci jeexantal rek moy da ngay ne ci ab jam dong la ñeer suñu borom tabaaraka wa taala mënta day ci yow loolu nag am na ñoo xam ne arrangé wu leen bëgguñu ko mooy dañoo bëgg dégradé wàcce borom bi tabaaraka wa taala ci xolu nit ñi ngir yéegal ay mbindaafam parce que noonu la seeni mbir di doxe noonu la seeni mbir di di doxe moo tax wér na ci xadis bu imaamu ahmad solo ak imaamu nasaa'i omar ibn euh, abdullah ibn omar di ko nettali nee na benn bés yonent bi daa taxaw ci minbar daal di jàng aaya bi ma jàng sànq ci neena na bi ay bi ba nopi bi accé àccee ci wasama wal ardu jamian qabbatuhu yawm al qiyamah neena yaronte ba ngay def ni loxom ni di yëngal loxo bi di yëngal loxo bi bam mu yàgg ñuy sentir minbar bi di yëngu di ànd ak rasulullah alayhi salatu wasalaam ngir yaronte bi ni muy yëge magaw yàlla katanu borom bi tabarak taala nim koy yëge neena ñun sahaba yi sax ñoo ngi naan est ce que minbar bi du mujjé daanu ànd ak mom minbar bi est ce que du mujjé xat xar andak mom ngir yonentou bi alayhi salatu wassalam ni bamto ay bi di yeklu li nga xamne moy mooy màggaayu yàlla subhanahu wa taala bokku julli ñi fi may jeexale mooy suratu maryam sunu borom dafa wax ne in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abdan laqad axsaahum wa addahum adda wa kulluhum wa kulluhum aatihi yawma alqiyamati farda aaya yooyu ay aaya yu mat a taxaw la di ko jàngat di ko càmbar rawatina suñ jamono jii suñ borom dane in kullu man fi samawaat nee na képp la wax ku nekk ci diggante asamaan seek suuf sii képp laa wax kuy mbindaafoon bi dund ci asamaan mbaa ci suuf mbaa ci diggante bi nee na amul loo doon lu dul ab jaam ñeel yàlla subhaanahu wa kon nañ leen jàppe nit ñi ay jaam nañ leen jàppe kilifa yi ay jaam ak lu ñu mën a am ci xam-xam ak fuñu mëna a toll ci dayo ci maqama yalla suñu borom du morom kenn te kenn jappali wuko ci nguuram ci limi def mom suñu borom du yonantu bu baax du malaaka du serigne du kilifa diine du kenn borom bi kenn langoorul lak langoorul lak mom motax mu ne leen yeen ñepp mu ñu leena doon ci man lu dul ay jaam kep ngeen mëna doon yam ma laqad axsaahum adda laqad axsaahum wa addahum adda te yeen nit ñi ni ngeen tollu ñi ñuy topp ak ñun dul topp ndaw ñeeg mag ñi ñu njëkk ñaak ñu mujj ña borom bi nee na yéen ñëpp laa xam amul ku ma ci ump yéen ñëpp laa xam léegi la nga gis doomu aadama boo xam ne njabootam day bari ba muy jaawale seeni tur borom bi nee na yéen moom yéen ñëpp laa xam yemu ma ca wa addahum adda xam naa seen lim doomi aadama yi xam naa ni toll xam naa ko man yàlla subhanahu wa taala fi may fi muy mujjee mu ne wa kulluhum nag déclaration bu am doole wa kilifa yeeg ñi dul kilifa sëriñ si yeeg taaliba yi ñiy topp yeeg ñi dul topp ustaas yeeg ndongo daara yi police yeeg soldat si président yeeg alkaati yi ñëpp yowmal qiyaam aatihi fardan da ngay ñëw benn par ngay ñëw taxaw ci kanamu yàlla yow dong waxuma la sa jëmm ji mooy présenté ci kanamu yàlla de mais cër bi sax du ñëw cër gi du ñëw cër yi fii la yem allah yow yomal fii la yem ci àdduna amul kenn kuy dekki alaaxira dekk waale ak ay cër amul amul kuy dekki àllaaxira dekkiwaale ak ay cër VIP taxawaayu bés pénc maxsar boobu amul ay VIP amu fa yonent bi jàngal nañu ne kuy toj ci bàmmeel doo sol yére doo sol tubéy doo taraxlaayu ak koo mën a doon noonu ngay ñëwee ci kanam suñu borom ay dàll doo ko sol doo tegu mbaxana doo wékkoo kaala ñëpp noonu la ñuy ci kanam suñu borom taxaw taxawaay boo xam ne ni muy yàggee ak ni muy guddee làmmiñ mënu ko wax doomu aadama yi jaaxle jàq tiit borom bi ne tekk noppi ab noppi bu diire boo xam ne day tiital ñëpp bi nit ñi mettee bi mbir mi mettee ci nit ñi ba metti ba metti doomi aadama yi dañoo defub délégation dem ci yonante yàlla aadam ne ko dañoo bëgg nga wax ak yàlla mu àtte ñu yonante yàlla aadama daal di gàntal ngir ñàkk bañ a dem wax ak sunu borom ñuy dem di dem di dem ba mujjé ci rasulillah alayhi salatu wassalam ibrahim ku ne xam na ne xaritu yalla la mom la suñu borom ne sama xarit la bu keroogee mom day ñak ay lay ngir dem di def intervention ngir yalla ñew àtte jàmm mbokk julit ni rew mi ni fi am buñ ci waxut mba ñu bayyi ci xel mba ku ne jël ses responsabilités damay ragal suñu borom tabaaraku taala wacc fi mbugal yal na yàlla subhaanahu wa taala gindi ñu yàlla bu yàlla jàppee yàlla bu nu yàlla jàppee li ñenn ñi di wax si ñun ci rajo yeeg ci këru xew-xew yeeg yu nu mel yàlla bu ko yàlla jàppee yàlla alag na aw askan lu gën a néew loolu lu gën a néew lu gën gën a wàcc lu gën a li nit ñi di wax tey ay nit wax nañ ko lu gën a néew loolu suñu borom alag leen suñu borom nag mu ngi nëgg ni ko xamuñu fan lay mujjee ak ñun waaye ne yàlla bu nu yàlla jàppee ñooña ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم